doors be. Salut les gars, y'a cool, y'a Daljamo.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 biir KBC ku daaxarab my boy Double M mu nekk booy bu ndaw bi booy bi nga xamante ni xelu mag la yor booy bi nga xamante ni li muy bind sax du asam franchement biir KBC amu fa morom mais maa ngi lay souhaiter mon frère réussite totale bu dee biir KBC dafa gën ci yow rek yàlla na doon loo xamante ni dina kawe sa njort ñoom ñaar ku nekk def nga sa pro parce que Double M mu njëkk blanché Ecodrill 2 parce que Ecodrill 1 si lañ ko xamee ba waa KBC signé ko Ecodrill 2 bi tamit disponible na actuellement gars yi dem leen ngeen seetaan ko euh, mu nekk sound mu nice comme daa côté bind technique en tout cas dam leen ngeen dooleel ko ngeen seetaan ko ba tey ñi ngi resee biir KBC muy Jazz kaana moom tamit nga xamante ni signé na biir KBC moom ak Ngaaka Blindé ñu ngi waaj lu yeme yéeme muy 37 mu war a disponible euh, le 27 février gars yi ñu ngi koy xaar déjà teaser bi blancé nañ ko après euh, mu jóge biir KBC damay ñëw ci Aza Bes Aza Bes vraiment mu nekk gars boo xamante ni ku productif la parce que boo xoolee deux mille vingt et un rek déjà blancé nañu album mu ñëwaat. tey deux mille vingt deux bi mu ñëw ak new EP mille neuf cent quatre vingt quinze muy EP bu nice EP boo xamante ni mu ngi composé de six titres am na ay featuring yu si am ku ci mel ni is e huit cent quatorze muy track deux bi my life ak last track bi ay feel god euh, featuring Mami Victory Keyti Baye Souley gars yi acca dem leen ngeen déglu ko ci plateforme yëpp ah, pour ngeen mën a dooleel seen artiste après as a best aussi di nga am deep dose deep dose moom tamit gars yi gëjoon nañ ko dégg moom tamit ñëw nañ jox ñu benn EP crossover te xam naa gars yi dégloo goo leen ko de mais dem leen ngeen jënd ko ngeen déglu ko mu nekk EP bu nice moom tamit composé de huit tracks ak benn bonus track gis gars yi dem leen ngeen teglu ko jënd ko dooleel ko ci gaay loolu moo nekkoon info yi nga xamante ni indaloon naa leen ko di wax ñi nga xamante ni yéen a ngi doog a dugg ci sama chaîne dos abonné leen te bu leen abonné ba pare bu leen fàtte ba seen cloche notification ba vidéo wun mën dugal rek ngeen mën ko am.